droit kel usb yaangi ngi noonu ah yuneh ku bëgg a ay son lamb yu neex mbayang lu ndey faatu ak keneen ku mëna a doon son yaangi ci biir 10000 francs lañ koy jaayé voilà ay lu mot presque 300 son 285 son lamb mo ci ne nga def ko sa auto dégloo ko dakar bo mali du jeex nga def ko sa kër wala sa place di ci déglu 2 jours du tax son yu jeex kon amateur yi commander len ci 77 804 86 84 wala 77 779 80 73 aca ndeysaan final baa ngi noonu fii ci terrain Gaal Gui le 25 février 2024 ndeysaan élection yi teel la waroon nekk Macky puus ko ñu ngi xaar date bi ba tey jàppaguñ ko diggante Papa Ngagne Sosokh la ak bébé Ous bu Sinja Mbay Kala moo woote woon Mbay Kala production 3 la tegaloon mbëri Papa Ngagne Sosokh Desa heure bi waroon naa fekk ñu naan li tendance yi de diw gagné na election, yi wala deuxième tour leer na waaye ñu daal di pousse élection ya tas yaakaaru sénégalais yi Yaya Condé gu akono yaar waacu Condé laar bébé Ousmane ñu woon gannaaw Papongaan moo yor ndambulu ñuul rouge noir la Sosa eh waay la ilaha illallah Bébé Ouss bi neexul biir at bu tax na avertissement Sosa Mboru Saliou Faye la seni Saliou Diop Faye bëgg naa ko ndeysaan waaye Lamine Sarr doomu ngaan la arbitre Cissé Lamine Sarr mu nga ca états maa ngi ko ziar Papa Kane Papa Kane Papa Kane daan na ko Kane appui